auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi tàdd yi noo ngi leen di nuyu ci ginnaaw bi ñu santee borom bi Mawlana tabaraka wa taala julli ci am yonente Mustafa alayhi salaatu te di jaajëfal asayxuna Seexul Xadim ak mboolem jëriñu mi dox suñu diggante ak moom jërëjëf ci nuyoo bi sahibul fatila Serigne Touba Serigne Cheikh Sidi El Mokhtar di ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala mu dellu yàggal ko fi lool te wéral ko ak mboolem jor Serigne Touba gi kon mbokk yi ñu dellu ci ak yéen seen groupe Al Istikhama dellu ci waat ak yéen ci bis bu màgg bis bu tedd bis bu xam ne moom la ñuy fàttaliku jàmbaari Serigne Touba Dia waaye doomi Serigne Touba Dia di Cheikh Mouhamadoul Amine Baara ibnu Serigne Touba waaye di ñetteelu doomu Serigne Touba. ci bis bu màgg bi nga xam ne njaboot gi nga xam ne ñoo fi nekk ci jamono jii te Cheikh Sidel Muxtaar nekk ci bopp njaboot gi waaye itam jiituwaale mboolem murit yëpp ñu di ko fàttaliku fii ci dëkk bii nga xam ne lu bëree bëri xew na kii di Mbacke Kajoor Mbacke Kajoor nag buñ ko tuddee mën nañ ci citewaale ay xew yu bëri yoo xam ne xew na ci mën nañ ci tudd benn rek muy lu mel ne yoonu murit mu mën a wax ne fi la sosoo fii ci Mbàkke Kajoor fii ci kër sëriñ bi di sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar ñu del di ko ñaanal suñu borom dellu yàggalaat ko fi téwéral ko waaye itam fekk fi mboolem njabootu Serigne Touba yëpp ak mboolem seex yi nga xam ne ñoom la ñoo àndoon ak Serigne Touba waaye itam seenu njaboot nekk leen fii kon mën nañu wax ne kuy am murid rek tey ñëw ngi fii ci Mbacke Kajoor ngir ndokkeel ci sëriñ bi ci bis bu màgg bi nga xam ne ca lay fàttaliku waajuram wa di Cheikh Mouhamadou Lamine te sëriñ bi wax ne ak cant moo waral muy woote bis bi comme ni ñu waxee woon ne njabootu Serigne Touba gi ak mboolem Cheikh yi nga xam ne ñoo àndoon Serigne Touba sunu njaboot teew fi noonu la gis ne njabootu Mame Cheikh Fall waaye tam ci ndigalu Serigne Cheikh Jëmmu Fall ñu di ko ñaanal suñu borom del yàggal ko fi Euh, mu yebal mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Ibrahima Fall ñu bokk ndokkeeli sëriñ bi fii ci Mbacke Kajoor euh, kon yi ci kanam tuuti dinañ leen demal fa nga xam ne fa la maam Cheikh Ibrahima Fall daje woon ak sangam bari sëriñ Touba radiyallahu anhu di ñaari fukki fan ci weeru koor di bisub dimanche nga xam ne fa la jaayante woon ak sëriñ Touba ngir liggéeyal boromam subhanahu wa taala ba am gërëmal suñu borom ci dëkk bi di Mbacke Kajoor ni ginnaaw nag ziar yi bi ñu jógee ci kër Serigne Cheikh Sidil noonu itam di Serigne Bassirou moom Serigne Bara dellu yàggal ko fi tëdd waaye itam noonu lañ fekkee mboole mbokki taalib yi bàyyi ko ci biir réew bitim réew mi ñëw di amal seen i ci bisu màggalu Mbàkke nga xam ne ci lañ fàttaliku sang boobee di Cheikh Amadou Bara moom Serigne Touba الذي ñëwee itam bi ñu jógee ci kër Cheikh Abdoul Basir noonu itam la ñu ñëwee ci kër Serigne Modou Aïssa moom Serigne Bara Mbacke moom Serigne Touba ñu di ko ñaanal suñ borom dellu yàggalaat ko fi te wéral ko ak mboolem njabootu Serigne Bara gi yëpp ak mboolem njabootu Serigne gi noonu itam lañ fekkee mboolem mbokki taalibe yi bàyyi ko ci biir réew mi wala itam bitim réew ñëw di ko ndokkal ci bisu waaye juróomu tedd wi di Cheikh Abdoul Bara ñu di ko fàttaliku fii ci Mbacke Kajoor bi jógee itam ci kër sëñ Modou Aïssa moom Cheikh Abdoul Bara noonu it lañ dikk fii ci kër sëñ Abdoul Aziz mi nga xam ne moo nekk ñaareelu xalifa Cheikh Abdoul Amin Bara te suñu borom subhanahu wa dogal euh, këram néeg bi nga xam ne moom lañ jàkkaarool fi la jëmm ji tedd jooju Cheikh bi mu liggéeyal suñu borom subhanahu wa taala boobu liggéey mat fi la wuy jee suñu borom subhanahu wa taala waaye tamit ñu jële ko fii ci Mbàkke Kajoor ci 1936 andi ko ci Touba ci ndigalul magam ji tedd ja di Cheikh Mouhamadoul euh, Moustapha waaye tamit Cheikh Amadou Bassir bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon jëlee foofe ci Mbàkke Kajoor andi ko fii moom moom lañ néeg bi moom lañu gis nii mboolem mbokki tali bi bàyyi ko fu nekk ngir ñëw saare ci bërëb bu tedd bi nga xam ne fa la sàng boobu wàcc na liggéey ba ñu andi ko Touba

bi ñu génnee ci bërëb boobu muy néeg bi nga xam ne fi la Cheikh Amadou Amine Bara wàcc woon ab liggéey noonu itam la ñu duggiwaat ci biir kër gi fekk fi sëñ Abdoul Karim di xalifam sëñ Abdoul Aziz ñu di ko ñaanal suñu borom dellu yàggal ko fi lool te wéral ko ak mboolem njabootug sëriñ Abdoul Aziz yëpp noonu itam la ñuy continuer ak yéen rek ngir ziar bi nga xam ne moom mooy am ci ëtt yi nekk fii ci Mbàkke Kajoor di mboolem njabootug Cheikh Mouhamadou Bara noonu itam la ñu ànd ak yooyu Bamba

ولي كان من ولما كان بالعطاء على بسيط ما أبادي ginnaaw siyaar yi nga xam ne nag moom lañ doon amal ci mboolem njabootu Cheikh Amadou Bara gi noonu itam la xam ne Mbacke Kajoor dëkk bu bëri taarix la ndax néeg bi ñuy jàkkaarloo nii bu tedd ba di xam ne moom la war a liggéey suñu borom subhanahu wa taala tam war ko ànd ak ñoom mooy bi sëriñ ko mu jotee ndigal ci sangam bi Moussa alayhi salaam mu bil himma bi sëriñ bi déggee war boobu ñëw jaayante ak sëriñ bi néeg bi ñu jàkkaarlool fi la daje woon ak sangam mu tedd ba di ñaari fan ci weeru koor di bisub dimanche di maam Sareem Fall Lampa lu Muridin dinaa nag bi ñu ñëwee fekk fi ay mbokki talib bàyyi ko ci gox yi xaw fa sant ko ngir ñëw di siyaar ci barab bi ñu fekk fi am makom talib yi muy Sëriñ Mamadou Sylla jot ñoo leeral tuuti rek ci taarixu Mbàkke Kajoor kon ñaan déglu kàddu yooyu ñu ngi wax ci barab bi liñ ci xamagos néew ak liñ ci nettali barab bi la ko waral mooy Sëriñ Tuubaa ba mu fi ñëw dana wut fu mu jaamu yàlla suuf sell su mu doon jaamu yàlla moo ko taxoon ñëw di wër bi mu wëree ba yegg si fii nag bi mu tibbee ci suuf si dana ah suuf si dees jaam nañ fi yàlla jàngi nañ fi alxuraan ba dëkk bi màndi na alxuraan màndi na jaamu yàlla ku fi jaamu yàlla loo fi jaamu yàlla dana ko nangu kon nag bar bi la wër loolu tax mu jël bagage am ne indi ko fii dëkk fi dëkk fi di fi jaamu yàlla di fi jàngale alxuraan ànd ak ay rakam ak ñim ak jàngal donc ne ba soxna Fat Jam yi taawam fi la gane ah, ba ko yàlla wone ne ko nag wool nit ñi ci yitte maanaam da ngay woote ak njëbbal ba mu ñëwee wax ko fere yi yi mu doon ah, jàngal ba mu ne ko waxee dégg xam daa tëj néegam toog lu ba ba ci ëllëg sama doog ma leen waxoon lu ngeen ci xam ba mu ko ñu mel ne sëñ Adama Guèye ak sëñ Daaru sëñ Samba Diop sëñ Samba Diop Sam ñoom ñëpp di jébbul mat daanaka fanweer ak juróom-ñeent fekk Cheikh Ibra Fall moom mi ngi woon Taïba Daxaar gii di wër sañ Touba dëkk bu ñuy wax euh, Taïba Daxaar fekk fa suñ maam ji ñuy wax sëñ Bamba Silla Bamba Silla lañ koy wooyee léegi mu ne fa di ko liggéeyal. di wër sëñ Touba dafa ne fa nag ba seexlu fa sëñ Touba am teraanga yi mu doon yët sëñ Bamba si la moom yónnee sëñ Adama Gueye ak sëñ bu sant ñoom la fa yebaloon ñu yóbbu teraanga yi dégg naa ba mu yeggee ba mu xoolee dana ah yéen yéen may xeeñ ci ma doon seet fu ngeen jógee ñu ne ko Mbàkke Kajoor mu leen ah xeeñ ngeen ma seet ku la yónni ñu ko yox Ahmadou Bamba Mbàkke mu ne kooku laa doon seet de du leen fi bàyyi de dégg naa ànd ak ñoom nag. ba yegsi bi mu yegsi fii ci Dakar gis gis gi fi lekk ron gis gi fi la fekk Serigne tubaa ci ñaar fukki fan ci weeru koor ñuy wax bisu dibeer la mu jébalu euh, jébalu Serigne Touba ba mu jébaloo mat ko ñeent fukki Serigne Touba daal koy jox xepp ak jaas yi daal di waxante ma la waxante ma ne ko nag Cheikh Ibra Fall dégg naa la mu ko wax mu ne ko soxla ma ci àdduna dara lépp loo may fayee na ma xaar na ma xaaral yow may xaar fay ma ko loolu la tax. mu ànd di ànd ak fere yi moom di yett di tab euh, wuti gattax ak i xer akum ñax di commencé defar kër def ay kees ba néeg yëpp mat mu buub ko ba mu set mu tame ko ba mu ba mu nooy nem léegi nag lu bu xëyee dem ci tool bi bu ngoonee mu dem Mbàkke Kajoor di wuti ndox boobu fi amagul ndox Mbàkke Kajoor la daan roote ndab yi fi ne ba jóg euh, ba yoon wi yokku ba yoon wi yokku ba soxna Fatou Ndiaye gane fi àdduna fi lañ fi lañ jógee nag ba ma Maamor Sele nelaw Maamor Sele nelaw ba yóbbu ko deqale rek bu fi toog ab diir nag ak euh, yi nag ci fi la jógee nag dem fële mhm. nekk fa ab diir jóge fa dem sanc Daaru Salaam jóge Daaru Salaam sanc Touba Touba moo tax euh, bon màggal gi suñ baaraam Mbakke Touba moo fa njëkkee gane àdduna ci euh, waa Kër Sëñ Touba moo tax ñu ñu ko màggal noonu daal lañ ci xamagu si néew di leen ñaanal nag yàlla yokk leen yàgg taal fi ñëw daal lépp loo fi ñaan yàlla dina ko nangu ndax Sëñ Touba na ko nee na ku yàlla yàlla na ko fu jaamu yàlla yàlla nangu na ku ko ñaan yàlla dina ko nangu ci soxla dana ko fi ñaan mu soobee yàlla dina ko faj waaw ci kattanu yàlla dara yéey Muhammad Rasulullah barke Sëñ Touba ginnaaw nag bi ñu dégloo kàddu yu am solo yooyu nga xam ne sëñ Mamadou Sylla doon na ko leeral nga xam ne bërëb bi fi la maam Serigne Fall daje woon ak sangam di Serigne Touba radiyallahu anhu noonu itam la euh, Serigne Cheikh Jim Fall jotee ndigal ci ku tedd ki di Cheikh ngir mu yeesalal barab bi nga xam ne fi la maam Serigne Fall dajeeloon ak sangam boobee waaye tamit ngir ñu taxawaalee fi kër goo xam ne dañ koy mën a dubbee kër maam Serigne Fall ak itam daara xam ne euh, daara ji maam Mor Anta Sali lañ muy daara maam Mor Anta xam ne ci euh, kilifteefu Serigne ci ndigalam ci lañ ko amale waaye tamit ci kilifteefu Serigne Cheikh Jëmm Fall xalif maam Serigne Fall moo koy defal ak mboolem taalibe Baye Fall yi nga xam ne ñoom bokkal ak siyaar yooyu ak bërëb yi nga xam ne demal na leen fa euh, noonu ngeen gis itam mbokki talib yi nekk nii ci dëkk bi noonu bi sëriñ bi wootee màggal gi di mbàkk màggalu Mbàkke Kajoor ngir sant waaye juróom wa di sàmm ko ci biiram wala itam bitim réew kon noo ngi leen di jaajëfal baax ci wuy si bi di ñaan ñu dajee ak tawfeexi sëriñ bi ngeen ànd ak seen groupe Al Istikhama ci caméra bi sëñ Baaxee Ja ci kàddu gi sëñ Mor Baare Ndiaye wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu